sant ko gërëm ko ñaanal ko rek yàlla suñu borom gën ko dimbalee ci ci kanamam xamal ko xamal ko ni ne ko sant naa la gërëm naa la ndax cër bi ko sédd ci boppam ndax léegi mën set weesu lépp lu muy dugg yëgal na ko te loo ko cawam def ko ca loolu sëñ bi sant na ko ci digg boobu ci loolu diir mu ngi fi nekk itam jëpp yitte joo xam ne masa ko ko wax tam jëm ci dëkk bi wala mu jëm ci njaboot wala ci taal lépp luñ ci man def na ko luñ ci mën tam jéem na ko ba sëriñ bi xam ne ne def na ci kàttan kon nag sëriñ bi nee na wax na ko kar ba léegi nee na ko dégg gi ma ne dénkoon dénkoon sëriñ Tuuba daal wóor na ma ne lii nga mën a ko ni loolu nag jàpp na ne kenn ko gis kon ñu koy sant di ko gërëm di ko ñaanal ci mboolem li nga xam ne mas na ko defal sëriñ Tuuba ci dëkk bi wala mu defal ko sëriñ Tuuba jëmal ko yàlla ko ci sëriñ Tuuba fay lu ko jox tam mu jëriñ ko ci àdduna jëriñ ko màggal moom neexutal yi ci bërëb màggal ndox ndax foo xam ne Sénégal yëpp a dox daanaka ñëw fa kon loolu dana def waaye nag ñu góorgóorlu ci yokk jéego yi ba nga xam ne nit ñi seen tur ak dana wàññi ndax ndox moom fu mu màggee wéer dana fa dana fa yokk te dund bu sell fa yokk ba ci des mooy entreprise bi nga xam assainissement bu Touba ndax nguur bi defoon na ci jéego ba tàmbaloon na liggéey bi waaye liggéey bi it xaw naa yéex tuuti ñoom itam ñu ngi ci sonn ñu gën cee def yitte ak taxawaay ndax Touba benn taw la taw ko wala ñaar wala ñett wisu ko waaye dëkk bépp màgg na loolu nag li ko indi mooy ndax bi nga xam ne dafay yéeg moo ko ba ca des it mooy tënk yi nga dafa yàqu booy génn da ngay tënk tamit ñaari yooyu daal bokk na ci yi nga xam ne warees na ko gën a soññ ñu gën ci def taxawaay fexe ba ndax wax nañu fi ñu war a pompe ndox mi rawatina fu mel ne ngiraan yi ak ngirëm foofu wax nañ ne am na ay jafe-jafe yoo xam ne lijjanti ko kon loolu góor nañ ñu koy fàttali nga soññ ko ñu def ci taxawaay ndax màggal bi di Cees motu bi ñaari weer kon fan yu waa Sénégal itam wax na ne ñu ngi ci ay jéego xam naa dañ ko leeral ak kër yi tam kër yu yàqu yi ñëw nañ fa jëm wax ne ñu ngi ci waajtaay bi war koo taxaw loolu tam ñu gën koo yokk def ko équipe yu bari ngir kër yi mën a jàll ndax bu fekkee mbedd yi dafa taal ba doon kër yi ni nit ñi amul fi ñaar dara la tëj moom beneen boo xam ne itam taw bi fàttali ko mooy forage yi nga xam ne moom la ñu manqué napp defoon nañ ko tàmbali ko daaw am na ay résultats yu am solo ndax bari naa foo xam ne napp bi mu wàcc waaye li ci mën a gën a fàttali mooy day mel ne boo tàmbalee booy soo kër am daal kër si tàmbalee kër si Bachir mu Sëñ Fall rek jafe-jafe jafe-jafe bu foofu la tàmbalee boo demee daamata bari na si yëngu Sëñ Fall ñoo xam ne daanaka génn nañ si diggante jël napp bi noonu la tasaaroo ci dëkk bi daanaka. xaw naa yaatu kon forage yi ñu ci defoon daaw war nañoo góorgóorlu ba defaat lu ko ndax bu ñu ko defut rek xam naa ren ñu génnoon ñu génnoon ci indi daaw ren ñu génnaat dana métti ndax bari na lool ci terre bi ñoo xam ne ku ci jaaxle rek dana ñëw ci man leneen ñu def ay woro yu ñu jeex ñu ne am nañu loolu fukki kër yoo xam ne seen kër génn ñu daanaka mënatuma ko lim kon jàpp naa ne laaj na ñu defaat ci gëstu yu gën a xool yoo xam ne dana tax liggéey bi gën a wàcc ndax boobu

gën noo gàtt ndoog tawféexi sëriñ bi